lenn la rek mooy li li li sëñ Mountakha digle yaa ngi dégg mooy li sëñ Mountakha digle mooy ñëw dalal gan ñi fonk leen euh, respecté mesure barrière yi ci ni ma ko mën a waxee daal mais ku ter gi daal mbiram daal moom tànk na am mais amul tànk ginnaaw. Touba nag ba muy dem ba muy dem ci ba muy dem ci kii géej ga xamu woon na corona dina am daa gëmoon rek di daw muy moo tax bu ñu nekk corona du ma dem Touba fekk ñoom gëmuñu ñu doon soo demee yàlla mën na la cee muccal boo toogee ca kër ga yàlla mën na la nga am corona bi. sering Tuba moom la yàlla bindeeroon koo xamee ne si ne lu mu bëgg it day am mu di bi nga xamee ne si ne am na dans le monde teewul it ni nga xamee ne si ne li bi digle woon it moom lañ koy def ndax it nit ñi ñëw na ni daan def na it ni daan def mu it ñëw si jumaa ji dégg nga siyaare siyaare li nga si lii nga xamee moom lan santaane ci màggal gi teewul mbooloo mi ñëw na bu baax a baax nan xam loolu buñ ko waxee mooy bis bi nga xamee nekk si ne mooy bis bi sëñ Touba génnoon kon yëg-yëg bi ñu ci am mooy dindu li ko sëñ Touba digle woon ndax Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul moo demoon liggéeyal yàlla ba ñëw ci bu ne bis bi may dem ci laay sant yàlla na ngeen ma ci sant la yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu di ndigal loo xam ne si moo ko joxe woon waaye ndigal li nga xam ne si ne moo ko joxe woon it la ni daal di jëfee ci terme yi nga xamee ne si na moom la tëral. lan daan màggale lan daan màggale daaw bërki daaw ak daaw jéeg yëpp li doon wax nit ñi rek da doon wax rek mais màggal gi moom neex rek la def yàlla na sëñ Touba fayal na. daara Kaabira ñu bëgg a dugg siyaare ñaan yàlla jéggal gi sunuy bàkkaar bu seytaane jéggal ci musiba ak bala yàlla may fekkee déwén. dañ corona gi ñu bari ne du ñu ñëw man ko ma dinaa dem su may dee Touba sax dinaa dem Touba ma dee fa ngir gëm sëñ Fallou sëñ Touba Mbacke mbooloo mi moo ëpp bu daaw ñëpp na murid a riir ñëw Touba. faj aaja yi guddi fan faj bàkkaar faral bàkkaar faj aaja yi dàqal mbas mii nekk ci fii yal nu ko yàlla tegg tegg bépp réew kon doon ko fi gisati faj aaja yi képp aajo ku fi indi yàlla faj yàlla وسلم عليه بمن